amis téléspectateurs et internautes de Leral TV et de Leral point net comme nun koy defee ba léegi ñu ngi fii ci gox bi ñuy woowee ñetti kàdd euh, ñetti kàdd nag tur bi ku ko dégg rek xam ne tur bi la ba tax na ñu war a rek ñëw euh, xam ban histoire la euh, la ñu sukkandiku ba tuddee gox bi ñetti kàdd bokk na itam ci li ñuy woowe promenade de Thiès mu nekk benn gox tamit fii ci Thiès laneen tamit bokk na ci mu di benn dëkk ñaari gaar loolee nag léegi léegi lay doon ak suñu kilifa biñ ciy dalal mu indil ñu détail ci yooyu le tour fii ngeen ma fekk nii actuellement angal ñetti kàdd lañ koy wax mais fii ci randu leen la bokk angal ñetti kàdd bi nag li ko indi histoire la Thiès dafa amoon ay temps yoo xam ne dafa am làmbu mbappat làmbu mbappat yi dafa bare woon ci dëkk bi léegi nag fii angal bi dafa amoon ñetti kàdd yu fi nekk nit ñi pour différencier lambu Normandie wala lambu Grand Thiès wala lambu yi dañ naan lambu angal ñetti kàddu ndax fii angal la juróom-ñaari mbedd ñoo tase fii ci kii bi dafa amoon ñetti kàddu yu nekk fii si angal bi léegi nit ñi bu ñuy ñëw fii dañ naan dañuy dem angal ñetti kàddu loolu moo indi tur angal ñetti kàddu bi. Euh, mu mel ni dëkk la wala boog tur la boo xamante ni yàgg na làmb bi nga xamante ne moom ngay wax ni mooy mbapat yi boobu ban année la woon. waaw mbappat mi booy remonté day dem ba ay 64 euh, côté yooyu la mbappat yi amoon fii ci Thiès booba amoon nañu ay autorisation yoo xam ni quartier bu nekk da doon animé sa quartier ñun ñu amoon fii sunuy mag ak sunuy papa yu nekkoon fii ñoo daan organiser làmb fii ci angle bi am ñeneen ñuy organise làmb bële histoire wu ñetti kàddu yi sax euh, ci benn bis boo xam ne foo Fodé Doo suba. ak Falaye Baldé ñoom ñëpp presque dañ doon ñëw fii di bëre animation bu mag bu amoon foo de Fodé ba war a ñëw fii moo taxoon nit ñi bare ba yéeg ci kaw kàdd gi benn kàdd ba ci la daanoo yeneen kàdd yi nag euh, dañuy dem ba yàgg rek au fur et à mesure carte bi évolué nit ñi jënd terrain yi di dagg carte yi noonu la demee. ñu déggaat fi beneen tour bu bees ci suñu nopp muy randu leen. waaw randu leen moom mooy quartier bu. original bi tubaab yi ñoo ko fi indi dañu jënd dañoo jëlee fële ci wetu tribunal bi fi mu nekk man sama këru famille foofu la ñu nekk tribunal départemental bi fi ñu ko tabax bu ñu doon fay tey dañuy fay terrain boobu ñu tabax tribunal bi ndax foofu suñu kër papa lool fa lañ ñu jëlee indi ñu fii toxal ñu fi bi ñuy toxal doon quartier la ñuy fi fii def ko rendu leen sud ci kaw noonu Mali Kayre jëm ci kaw noonu ñu tuddee ko rendu leen nord. leen euh, pousse moo tax ngeen tuddee dëkk bi non non loolu rendre ni moom tubaab yi ñoo ko indi de xamul fu ñu ko jëlee daal ba ñoom ñoo ko tracé daal ñu fële daal mooy rendu leen nord xam ma rendu leen nord rendu leen sud ñun ci rendu leen sud la ñu bokk ñetti cadre nag mi ngi ci biir rendu leen sud fi mu nekk nii waaw waaw Grand Thiès bi ñuy wax Grand amul Grand Thiès rendu leen sud la bokk waaye comme Grand bi moo gën a law dañuy wax Grand Thiès mais boo demee ci document yi mhm. rendu leen sud moo ci nekk ak rendu leen nord waaw mais Grand Thiès ci Grand Thiès amu ci Grand Thiès lotissement yëpp Grand Thiès amu léegi nag beneen tour ñu koy dégg benn dëkk ñaari gaar dem sax ba ñu ñaari moom ah xam naa lu yàgg la parce que version yi ma fekk ñaari version ñoo fi am benn version bi Thiès dafa nekk capital bi mu nekkee capital am train buy jóge Saint-Louis di ñëw gaare Thiès dem Dakar am buy jógee Kaolack di ñëw gaare dem Dakar kon ñaari gaar am na fi gaaru Saint-Louis ak gaaru Euh, Kaolack waaw boo dee embarqué dem Kaolack da ñëw ci gaar bi muy première gaar bi dem Saint-Louis dañuy embarqué ñu naan gaar geer am na ñeneen ñu wax itam ni train bi daan jugee Kaolack bu ñëwee ba fële ca cité Balabe ci kaw noonu dafa daan taxaw foofu wàccee foofu ba pare ñëw wàccee waat fii ci gaar bi ñuy wax ñaari gaar ñaari version yi nag ñoo fi nekk xaw nag moom mais ñun fi lañ ko fekk daal version yi fi lañ ko fekk. ba tey am na beneen turu gox ñu koy wax promenade des Thiessois. waaw promenade des Thiessois boo gisee 4 avril daf fi amoon dëkk bi xaw a euh, jaxasoo lool lool lool fu nekk bâtiment nekk fa fu nekk am amuñu woon place bu ñu defee 4 avril fu ñu mën a monter turbine bu baax man ancien militaire la adjudant chef la tribunal fii euh, ñi defee 4 avril fa ñuy def turbine ba poste moo fa nekkoon mais Idrissa Seck ci xalaatam bu rafet bi mu ñëwee moo war a wut place bu mel ni place Concorde ba waa France di défilé wala bu mel ni bu Dakar rafet moom la xalaat mu créé foofu ñu dindi fa poste ba defal ko place bu yaatu mu defa noonu mu defalaat foofu nag ba mu baax ñu tuddee ko promenade des Thiessois loolu aussi moo indi foofu waaw ci euh, projet yi ma indi woon 74 projets la waroon def ci biir Thiès projet boobu ci la génne yeneen projet ci des nag xam nga ne mu demee histoire bi mu demee yenn projet yu bare yeggul waaw